bo dé borom xel ta xam dara ni nga xam ni jamono ji day jamono sëriñ bi borom jamono ju ne ah yàgg sa jamono waaye li des ci adina sëñ Tuubaa ko moom Cheikh Matijal Sirif ku reuy la fas la talé woni talam togge fa ñam yi duggu na Sénégal Abdou Khadir Jénaane Baxdaad la talé talam fa ñam yi duggu na Sénégal sëñ Bamba talé Touba ñent di ko nga nekk Dakar di xuli ba aji wo am def nga mhm. day na waar ku mën ba fas mana mhm. ba baghdad wala mana Touba ci kat ñooñee lu ñu rëy rëy rëy sëñ Bàmba nee ay jukki lañu man mi may kaamil bi sëñ Tuubaa mooy kaamil bi ku ko jiitu dox digga bëgg rasulullah yab jukki nga ndax kaamil bi mujj ñëw ëmb jukki yëpp moo tax ma ni Muhammadu rasulullah mooy kaamil bu yonente yi alxuraan mooy kaamilu téere yi mu jaddid yëpp sëñ Bàmbaay seen kaamil njaboot ak sëñ Bàmba gépp sëñ Saaliu Mbàkke seen kaamil donc yëpp donc bu ma sa top nguur yalla ko yalla yoni ngir xëttali jam mhm. ni Cheikh ibrahim Fall kamil nim topé seigne Bamba kenn ku ma sa ñew jamono ngir di xëttali jam ni am ko leen di toppee liggéey leen ni waree ni mustafa da lan wax saaba yi ne ko mhm. dan la ko wax yu wala ya ko xalaat mu ni mako xalaat ñu xalaat jox ko bu gëna rafet ñu doxal mhm. Cheikh ibrahim nak lu Bamba wax mu del ni naaw fóorim ji reuy ci sant saaw na ko da ngay deltu ginaaw jangil murit tum pexé te fi ne ku doxul doxinu Cheikh la sax do ndir murit ndax dang koy jang muni ni ba sin mi mala doyna ba bàyyi lu gon faw sin sax ci ndigal faw mi mucc aduna ak alakhirah neena alquran li muy reey reey ya araf yi rek la indi neena ba bàyyi lu gon faw sin sax ci ndigal faw mi mucc aduna ak alakhirah keroog bin ko waxe ko yoon wi daa mun ko muni kon dina yokku bindal yëngu ñu bind ya kef ñun ko bindal yokku mu bind ya kef mu ni fek mu yëngu di yokku bu nopp yëngu dootu yokku lolu kemaan la señ ci le